maa ngi tudd Ndiaga Wade nekk eh, responsable APR bu Thiès Nord nekk aussi tamit conseil municipal si mairie commune bu Nord Thiès. Eh, voilà tey dañuy wax eh, monsieur Wade li nga xam ne mooy situation politique locale fii ci Thiès gis nañu mouvement Talla bi nga xam ne moom moo yëngal parti réew bu Idrissa Seck yéen en tant que way politique ngeen fare ci nguur gi naka ngeen ko waaw mouvement boobu man gis ma si benn inconvénient parce que Talla responsable politique le bu yàgg Sénégal nekkul sax nekkatul responsable politique bu wax niveau local parce que Talla dépassé na loolu parce que yaakaar naa kilifa fallait comme président Idrissa Seck kooku bu taxawee taxaw bëgg top sa ginaaw war nga am gëdd boko jox boko joxul aussi tamit gëm naan dina gis boppam parce que parti bo xam da nga organisé ba pare nit ki ñëwal mu ñëw mu bëgg ko indi ci bir niko ko jëndal sama carte de membre parce que man li ma si a xalaat si côté bobu ku mel ni président Idriss Seck maa ngi ko doon séntu bis buy joxe maire Thiès bi mu xool ay critères yi muy teg mu nekk ay qualité comme nit ku am si teg ko si ay qualités yu leer quoi comme ku jàng am xam-xam bi et cetera mais yow dem ñu Thiès waay wóolu la dem ba jox la seen maire yi. amul ben critère booy teg pour joxe dénkaane ko lu jëndal sama carte na membre parti loolu yaakaar naa ni ñàkk respecté Thiessois yi foofu la commencé kon ñoo ngi doon xaar ku mel ne président Idriss Seck nan kon Thiès ñoru ko li ko ñor mooy parteem parce que bu ko mi si yi muy njëkk a teg ku am xam-xam ku jàng ku mën yor dëkk bi mais loolu aussi tamit dafay feeñ ba si départu Talla Sylla parce que tamit bu fekkee sa bopp rek la ñor ku mel ni Talla Sylla yaakaar naa ni doo mën a ànd ak moom parce que Talla ñun liñ ko xamee bu doon boppam ñor kon ni dépensé na fii quoi mu yàgg. Euh, waaw tey bu ñu dañuy gis ni euh, maire yi maire yi nga xamne ne ñoom ñoo faré ci parti réew mi nee ñu euh, day def sax ay audience publique di si sànni di ci ŋaññi maire yi seen liggéey yéen en tant que conseil municipal nak ngeen ko gisee parce que sax ñu ngi naan budget bu mairie ville gisuñu ko fenn ci commune yi nga xam mom la wara mutualiser muy ouest est ak nord. waaw xam nga comme acte trois bi ni mu demee li mu teg dafa ko teg dafa leer naañ amatul luñ ciy laam-laame wala luñ ci laaj ak yooyu acte trois bi li mu wax mooy maire communes yi trois communes yi bépp travaux booy def wala looy def war ngaa aviser mooy maire ville demande ko si xalaatam mu wax la ko mais boo xoolee li ñuy def fii yëpp maire yëpp amul kenn ku si dem wax seeg taala wala nga kii dafa mel ne ñoom dañoo ojaloo dekk benn groupe pour jël ko affaire def ko affaire politique politicien di ko jël ko bëgg ko def arme pour xeex ak taala si la du loolu cees waaye soxla wuñ loolu liñ soxla mooy ñu àndandoo comme moom la taala la fi yàlla teg ñu ànd ak moom liggéey pour njariñu dëkk bi quoi yaakaar naa la waa cees gën soxla moo gën yi ñuy def amul dëkk bi benn njariñ quoi kon daal yéen tey euh, waa APR ak coalition benn bokk yaakaar da ngeen di euh, ànd ak taala si la jàppale ko wala da ngeen di euh, mandu ci ci mbir mi. waaw du jàppale Talla la ñun Thiès la ni jàppale parce que man conseil municipal là c'est commune nord bu buñ ko projet bo xamante day jàppale askan wi man dama koy voter comme tout le monde kon du question taala ci la ngay jàppale li nga wara jital jiital jital sa bop da nga wara jital jiital dëkk bi ku jital dëkk bi nak yaakaar naa day fàtte affaire parti teg fële élection passé nañ ko ñi gagné gagné nañu ñu ngi yóbbu ne kon bu ñu tegee loo xam luy jëmele dëkk bi kanam la kooku ñëpp ci wara japp man yaakaar naa côté bobu laay gëna xolé que ay taala ci le Idrissa Seck wala réew mi ay APR et cetera yooyu noonu tutul rek pour dem ci euh, nguur gi manam ci APR waaw euh, non taala mom euh, man waxna ko tan man nako waxat fi taala ku ko jiñ ceesuwaay man nan ko layal parce que taala bu fekkon poste ministère la bëgg ku ne xamne man nako ko am bu don xaalis moko yitel kon du tay lañ ko koy jign quoi loolu yakana jeurul sax ñu ci commenter lu bari caala ku ne xamna ni lom bu ne taxaw fi nit ñi liko nit ñi daan xasse di ko waxe lu bari bari moy taala bëggul dara waaw loolu kon tey du du passé at yooyu yëpp wutul dara ba tey ñu jox ko lu ndaw lii xam ne dara nekku fa mu ñëw wëlbatiku di ci wutaat dara mënul nekk